asalaamaaleykum dal leen ak jaamu mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV mbokki internet yi kii di Barthélémy Dias ngeen xam ko démb nag émission jàkkaarloo bi mu doon amal fële sa TFM moom nag dañu gis que ne vie yi yokk lool lool loo xam ne daal daaw ñu ko gis si bu ñu invité. kii di Barthélemy Dias si ab émission lu ne mel nag ndekete gars yi bi ñu xoolee information bi daal dañoo gis que ne nag moom mi di maire bu Ndakaaru di Barthélemy Dias dafa jënd ay vi comme image yi noonu ngeen koy séenee mu nekk mbir mu doy waar moom Barthélemy Dias si plateau boobu noonu nag daal dina fay yëkkati ay cadeau di xamle que ne nag kii di Ousmane Sonko grève de la faim bi nga xam ne daal dina koy dëkkee mu arrêté ko sinon rek bu génnee mën na fee am feebar boo xam ne daal a rein daal dootu ko amati mu nekk mbir moo xam ne daal daal dina doy waar